soyez bu yeboo ngeen dalal seen xel rawatina ñi nga xam ne mooy waa coalition benn Bokk Yaakaar ndax lu tollook fukki at ak benn ak genn wàll ñoo ngi ci bopp ah, nguur gi ci li nga xam ne daal moom la ñu bëgg mooy indi ay coppite yu leer ci doxalinu réew mi te loolu lu wér la ci wàllum progrès waaye tamit fexe ba ñi nga xam ne ñoo nekk tugal ñoom it ñu yëkk wàllum développement loolu mooy sama mbébét. te jóguma ci te am ñoo xam ne dañoo bëgg a yàq réew mi te loolu duñ ko seetaan mukk na seen xel dal ñun nag daanu taxaw temm ngir mën a aar ak yiir suñu réew mi nga xam ne amuñu lu dul moom waaye tamit samp fi wàllum jàmm ndax dëkk bi dëkkub jàmm la wàllum stabilité ak développement kon tamit bu yeboo ngeen def akub say ngeen booloo ndax dañuy dox dëkk mal wàlluma victoire ci atum 2020. donc restez unis, restez pour aller vers la marche du progrès et vers victoire de 2024.